fa zakir fa inna zikra tanfau lmuminin waxaala subhaanahu wa taala fa zakir bilqur'ani man yaxaafu waid wa usalli wa usallimu ala abdillahi wa rasulihi allazi ma taraka baaban yaclamu fihi xayran ilaa dalana alayhi wala tariqan yu addi ila charri ilaa xasarana minhu mbokk jullit yi ginnaaw bañ sante yàlla julli ci Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam leen wax ne dellu si waat nañ ci émission bi nga xam ne moo di kàddu daara yi dañ ciy ànd ak yéen saa su nekk fii ci télévision bi nga xam ne moo di ma Mafatihul Bichri ngeen taamul ko seen bopp di ci ànd ak ñun ñuy sant bu baax a baax ñi nga xam ne ñooy waa kàddu daara yi jàpp ci bu baax a baax a baax di dimbalee alquran di waaye di dimbale daara dimbale rek te yàlla rek tax ñi ngi leen ci ñaanal bu baax a baax a baax mbooleem koo xam ne rek yëkkati nga sa alal def ci ñu ngi lay ñaanal bu baax a baax buñ sañoon kenn ku nekk ñu tudd sa tur waaye am na ci ñoo xam ne dañuy def te yàlla rek tax bëgguñu ko tudd seen tur kon ñu ngi ñaanal mboolem koo xam ne rek jàpp na ci daara ji kon ñu ñëwaat ci émission kaddu daara yi fii nga xam ne moom moo di Dakar ci Kër masaar fi la ñuy ñëw ci daara ji nga xam ne moom lañ tuddee daara maam Khalifa Ababacar si tey fi la ñëw fas yéene seet si li nga xam ne moo nekk ci biir daara ji te waa association éducation enseignement islamique taxawal ko ñu nekk fii ci Kër Massar ñu koy wax tu Gànna Sarr fi lañ nekk tey fas yéene ànd ak yéen ci émission bi nga xam ne moom moo di kaddu daara yi mu nekk institut islam boo xam ne macha allah li muy produire ci doo ay doomu aadama ngir taxawal leen jàngal leen alquran ba ñu mokkal jàngal leen xam-xam bari na lool ñu dégg ko moom moo tax nag ñu ñëw seet si leen tey ana naka lañu nekkee ci biir daara ji naka la jàngalee euh, xale yi alquran ba tax ñuy mokkal euh, ba tax itam ñuy am éducation bu baax ndax dañoo boole jàngale ak yar mu nekk macha allah lu am solo kon xam naa dañuy ànd ak sëñ Mor rek dugg ci biir seeti daara ji macha allah euh, naka la ñuy doxee ci wàllum jàngale alquranu karim ak naka la ñuy def. ba ñi nga xam ne ñu ngi seetaan télévision ma Fatihul Bichri jàpp ci li nga xam ne moom moo di daara ji nga wax naa leen émission bi li ko tax a jóg yéen ñi seetaan na ngeen ci bàyyi xel bu baax a baax mooy ngir képp koo xam ne bëgg naa yëkkati sa alal def ko ci yoonu yàlla képp koo xam ne bëgg naa dimbale alquran képp koo xam ne bëgg naa dimbale daara bu ñu waxee dimbale alquran mooy dimbale sa bopp ndax la ngay yëkkati def ko ci alquran karim mooy li nga xam ne danga koy dencal sa bopp ngir ëllëg jëf ju baax ji nga xam ne ëllëg macha allah foo mënti nekk ah, mu fekk la fa waaye itam ci yàlla dana la fay ki yëkkati alalam def ci alquran yàlla dina ko fay ci àdduna waaye itam dana ko fay itam ci àllaaxira kon ñu bëgg saa yu defee émission ñu def ko ci kon xam naa dañuy ànd ak sëñ Mor rek dugg ci biir daara ji iqra bismi rabbika alladi xalaq xalaqa al insana min alaq iqra wa rabbuka al akram alladi allama bilqalami allama al insana ma lam ya'lam كَلَّا إِنَّ الْإِنسَانَ لَيَطْغَىٰ أَن رَّآهُ اسْتَغْنَىٰ إِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الرُّجْعَىٰ أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَىٰ عَبْدًا إِذَا صَلَّىٰ jërë ngeen jëf mbokk jullit yi nga xam ne saa su nekk yéen a ngi ànd ak ñun ci télévision bi di Mafatihul Bichri ba tey ñu ngi ci émission kàddu daara yi nga xam ne macha allah tey ñu ngi fii ci Kër Massar eh, ci Medinatu Gana Sarr eh, seet si ki daara ji nga xam ne mooy daara yi maam xalifa Ababacar si waaye nag dañ fay fekk waa association éducation enseignement islamique ñu fi def lu am solo mu di taxawu ay doomu aadama ay doomu jullit di leen jàngal alquraanu karim waaye itam di leen eh, tarbiya maanaam di leen jëm ci wàllu éducation maanaam wàllu yar leen ci diinal islam. ñu ngi toog ak ki nga xam ne moom moo di euh, Oustaz Makhtar Sylla mu nekk kenn koo xam ne kenn la ci macha allah ci ñi jiite daara ji di fi yar xale yi di fi jàngal xale yi alquran karim xam naa dañ koy jox rek mu nuyoo ko mbokk yi nga xam ne ñu ngi seetaan émission kàddu daara yi. alhamdulilahi rabbil alamin wa sallallahu wa seetaan Bichri yi ci kàddu daara yi ñu ngi leen di nuyu yéen di leen ziyaara de eh, jërë ngeen jëf eh, mbokk yi kon mbokk mi nga xam ne moom moo doon nuyoo moom moo di Oustaz Makhtar Sylla xam naa rek dañuy dugg ak moom ci li nga xam ne moom moo di waxtaan wi eh, balaa loola itam xam naa dinañ ànd ak moom seeti li nga xam ne moom moo di classe ya waaye nag dañuy am ak moom jotaay ba pare doog a seeti ci biir maanaam classe yi ñu bëggoon a xam Oustaz Makhtar Sylla buñ ko doon laaj moom mooy kan kan mooy Oustaz Makhtar Sylla ah, soxna si alhamdulilah rabbil alamin euh, man maay kan wala ñi nga xam ne ñoo taxawal daara ji ñooy kan ñooy ñan euh, man maa ngi tudd Makhtar Sylla euh, dëkk Fass Touré wante damay présenter waale ñi nga xam ne ñoo ànd séq liggéey bi muy Mouhamadul Makhtar bu ndaw ak Mouhamadul Hadi Sylla ñu ñëpp ñu ngi bokk dëkk Fass Touré jànge fa tamit ci daara joojee daara ju mag joojee di daara Alqam ibn Abil Alqam te ka nag ca bopp ba Cheikh Abdoul Aziz Mouhamed El Hadi Touré yàlla fiq aw fanam defal ko tawfiq foofu la ñu jàngee alxuraan fa la ñu jàngee li jàng ci xam-xam ba ñu fa jógee nag ci lañ ñëw def xalaat am xalaatu bëgg a bokk ci ñi taxawu téereb yàlla bi bañ ca bëggee bokk itam xam ne pour yaatal ko foog ñu taxawal lu mel ni lii ngeen di seet si tey te mooy. markaz maam xel Ababacar si euh, ci kaw mu ab ab association éducation association yanu ko mu nekk ab complexe loola xalaat boobu ñett ñu ñett ñi ci ñun la bàyyi ko ñu xalaat ko tër ko ci la ñuy dox ba léegi loolu tam incha allah bu loo ci laaj ñu dox incha allah. Eh, jërë ngeen jëf mbokk yi dégg ngeen Serigne Makhtar si la ni mu ko tënkee koy ay ndongo daara lañ yoo xam ne ña nga bàyyeekoo ci Fass Touré booloo. def benn euh, mbooloo euh, amal li nga xam ne moom moo di association bi nga xam ne moom moo di éducation enseignement islamique mu di ñoom ñett ñoom ñoo ko taxala mu di sëriñ Maxtaar la ak sëriñ Maxtaar la mu ndaw ak kii di sëriñ Xaadi la kon macha allah lu am solo la te itam euh, am nañ ci yaakaar ne luy wéy la ndax borom bi subhanahu wa moom moo ko wax aljamaatu rahma kon mu mel ni ki macha allah am na solo lool waaye itam bëggoon nañoo xam maanaam daara maam xalifa Ababacar si lan moo waral turu uh, daara ji tudd maam Khalifa Ababacar Sy. waaw uh, tur wi de weesuwul rek sëriñ Babacar Sy radiyallaahu anhu dafa bokk ci mag ñi nga xam ne dañoo taxawal di dañoo taxawe diine taxawaay bu rafet yàlla cëral leen tamit ci diine ñu liggéey ci liggéey bu rafet uh, nekk fii ci taxaw diine ji ak mbokk gi ci jàngale ko ak yare ci def ci ay jaloore yu mag a mag a mag loole mooy li nga xam ne mooy sababas daara ji gaat nga tuddee ko daara ji ndax ku baax ku nekk tudde la mbir dana tax euh, mu jeexital ca donc tudd gu ñu ko tudd sëñ Babacar dañ ko tànn muy kenn ci mag ñu baax ñi mag ñu baax ñi bari nañ waaye comme mën a tudde ñëpp dangay tànn kenn rek tudde ko mu yóbbaale ña ca des turam loolu mooy di turu maam Babacar si euh, waaye wax dëgg yàlla euh, muy mag mu baax ñu am yaakaar tamit ne daara ji méngoo naag moom ay doxin te mooy njàngale ak yare ci kaw alxuraan sunna sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam loolu mooy li tax ñu tudd ko daara ji. jërëjëf sëriñ Makhtar la wax na lu am solo jëmale ko ci mag ñu baax ñi tax. Euh, ni ñu nekkee woon ci fii ci àdduna euh, ba tax macha allah ñu leen di ndamoo tey ñu leen di tiitaroo ndax jëf nañ fii euh, loo xam ne macha allah am nañu ci teg seen bët waaye terewul bind nañ bàyyi fii looloo tax ñu tuddee ko lii di maam xalifa ñas ngir mu am jeexantal fii ci biir daara ji macha allah am na solo lool. waaye bëggoon nañoo xam itam daara ji di association islamique association éducation et enseignement islamique bëggoon nañoo xam naka lay doxee maanaam ci yan condition lay doxee ba tax daara ji egsi fi waaw laaj boobu condition yi de ñaar la dafa am condition yi yoo xam dafa concerné ñu liggéey bi ak yoon dafa concerné xale yi nga xam ne ñoo fi nekk ak seen i parents bu dee condition yi nga xam ne moo concerné ñi yore liggéey bi mooy futtiku jàngale njàngale mu wóor te ñu ngi koy def nañ seen kem kàttan njàngale njàngale mu wóor te wér njàngale njàngale mu wóor te wér loolu ñu ngi koy def kem seen kàttan loolu mooy wàllu ñi nga xam ne ñoo yore ñoo yore daara ji taxawu xale yi tam ba benn xale du fi xiif benn xale du fi mar benn xale du fi rafle benn xale du fi sonn coono boo xam ne dafa dafa jóge ci loxol nit xam ne daal coono bi fi xale sonn la dafa fekk alxuraan ko laaj muy coono njàngum alxuraan mu wóor mu mokkal ko waaye beneen xeetu coono bu nit di teg moroomam incha allahu taala ñi ngi daw ñoom ba loolu du fi am beneen condition ci des mooy yi nga xam ne mooy may xale bi mën a dugg ci daara ji te mooy xale bi li ñu gënal mooy mu am juróomi at jàpp bu xesee am loolu am na yu ñu koy tegal yoo xam ne mooy tuxale ab dundam ci kër papaam indi ko ci daara ji maanaam euh, xale bu rek ci daara ji bu nekk sa waajur moo la war a dundal waa daara ji ñoo lay jàngal ndax am jàngale du lu ñuy fay kenn mënu ko fay itam wante nag dundub xale bi fu xale bi fu mën a nekk waajuram la war wa alal mawludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil maaruf waajur moo war a dundal yaay ak doom fu ñu mën a ne kon nag dund ba la ñu déplacé ca kër ga andi ko ci daara ji xayma ko mu nekk ci dog dox diggante juróomi junni ayul ak lu ko soriwul loola lañuy jël dajale ko jéem caa dundal xale bi donte xam nañ ne mënu ko 100 pour cent waaye bu ñu ko dajalee xëy na jamaa al jamaatu rahma ji nga wax sànq bu mbooloo àndee dañ ne mbooloo ànd wat wat weer mbooloom xolandoom wala mbooloom sànq la dañuy ànd wat weer weer aw sax wu rëy la. waaye bu wenn sang lañ beroo du ko mën a wat waaye bu mbooloom sang lañ dajaloo danañ ko mën a wat loola moo waral euh, mbooloo mi bu ñu àndee kenn koy def loola toxal sa dépasse toxal ci sab dépasse sax laay wax da du lépp andi ko ñu dajale ko man kaa dépasse xale man caa añ man caa reer loola mooy condition bi koy dugal te loola mi ngi dollu ci juróomi junni sënul foofu loolu mooy li aju ci gone gi booy jur itam li aju ci moom te mu war koo def mooy fexe ba dund boobu du manqué kenn du bàyyi ba nit dem marché ba ñu ngi ko jox dépasse ab dépasse dañ koy jox kër leget gi jëm marché loolu tam euh, ñu ci ñaan para ñu ci bàyyi xel daara ju mën a doon ci daara yi ak fu mu daara daara ci Sénégal ci àdduna way juree ñu xam ne lañ fay joxe ab dund bu ñu toxoolee ca kër ga la yóbbu ko ca daara waaye bu ñu ko tuddi mukk ak fay tudde fay bàkkaar la ci jàngalekat bi bu ko tuddee ab bàkkaar la ci way juri ndax du fay alxuraan kenn mënu ko fay waaye nag faaw ñu organiser ba nga xam ne comme dañ na xale bi dafa war a jàng ab nit balaa mën a jàng day lekk naan wér lekk gaa naan nga nag mooy loolee ñuy laaj wooy juróom mu koy toxale ci kër ga di ko ëssi ca daara ja ñu koy ñu koy borom daara ja di ko doxale noo xam ne xale bi dana ci mën a aññaree ci ndekki ci man caa sangu naan ca xam nga loolu buñ ko tuddee ci juróom junni ci ko xalaat xam ne xaw la mën a nekk waaye nag aljamaatu rahma ah, te itam alxuraan ku ci nekk di yëngutu saa borom yàlla da dalay da lay da ay ay ay ndimbal da tëbb ay xalaat da tëbb ay ay ay ay yiw ak di ay aw gaay woo xam ne yàllaa leen ñor ñuy ñëw di ndimbal ca daara ja ngir wut yàlla bu du mën a yooyoo loolee ñu joxe sax du man dundub dundub xale ya condition yi daal xanaa bu xasee am njàngale moom ni ma la ko sànq am njàngu alxuraan bu wér am na fi akum njàng sharia bu wér ci ko bëgg ku mokkal alxuraan te bëgg a jàng sharia itam fi jàng njàng moom Cheikh Mouhamadul Haadi mi nga doon introduit sànq moo yore njàngu sharia moomu ak la aju ci luxa ak naxwu am na tamit njàngum français mu fi am moo xam ne xale yi ci semaine bi danañ am ñetti cours yi yoo xam ne mën naa ñaari waxtu benn cours bu nekk ñaari waxtu ba waxtoo genn wàll pour yee leen ba ñu yewwu ci mën cee bind mën cee dox seen wax seen soxla bu ñu fi jógee dem ku ci bëgg a jokk mën a jàll jàll nga yomb la am ci niveau tam mën laa yomb. jërëjëf Oustaz macha allah am na solo. waaye xam naa ginnaaw loolu itam dañuy dem seeti rek classe bi nga xam ne moom mooy premier classe bi ñu dem seeti maanaam xale yi naka lañ fa nekkee di jàng al alquran karim xam naa du ñàkk ñu ci tare alquran wala ñu defal ñu ci wàllu nashit wala mbooleem doo xam ne dañ ña ngi ko fay jàng ñu xooli ko te daal di dellu siwaat خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر Musa borom moo tanga yam ci li nga xam-xam te jëfe ko jàngal sàkkul xam-xam te jëfe ko jàngal daara daara ba yóbbu ma daara daara daara ya yóbbu ma daara ci daara la yaru ne qiyam jege na dundu gi woy na jege na jërë ngeen jëf mbokk yi seetaan émission ma Mafatihul émission kaddu daara yi ci télévision Mafatihul Bichri wax naa leen ñu ngi fii ci kër Massar Medinatu Gànna Sarr ci institut islam bu am solo bi nga xam ne moom lañ tuddee daara maam xalifa Ababacar si te ñu fekk fi waa association éducation enseignement islamique ñu fi jàngale itam lu am solo gis ngeen xale yi fi jot a jaar macha allah euh, alquran ju am solo jooju nga xam ne tar nañ ko waaye nag dégg ngeen jotaay bi nga xam ne am nañ ko ak Sëriñ Maxtaar euh, ni mu amee solo waaye nag ñu ngi ci euh, classe bi nga xam ne Serigne Khady Sylla moom moo ko yore di fi jàngal xale yi di leen jàngal alquran karim waaye tam di leen jàngal ci langue bi nga xam ne moom moo di français ngir ñu mën a defar li nga xam ne moom moo di seen àdduna ginnaaw ba ñu defee ci seen dënn yi alquran karim kon mu mel ni kii dañuy bàyyi rek ndongo yi nga xam ne fekk nañ leen ci biir classe bi ñu bàyyi leen ñoom tamit ñu wane seen bopp xool naka lañ mënee ci wàllu alquranul karim a'udhu billahi minash shaytanir بسم الله الرحمن الرحيم إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها لا ترى فيها عوجا ولا أمتا يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاه ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون sadaqallahul azim bismillahir rahmanir rahim wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiban farihanun maqbudan fa in amina ba'dukum ba'dan falyu'addi alladhi يؤمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله عليم بذات الصدور sadaq iqra bismi rabbika alladi xalaq xalaq alinsana min alaq iqra wa rabbuka alakram alladi allama bilqalami allama alinsana ma lam yaclam kalla inna alinsana layatgha an ra'ahu istagna jërë ngeen jëf mbokk yi gis ngeen macha allah loolu nga xam ne jëlee nañ ko ci classe boobu nga xam ne euh, fa tànk yi di nekk euh, di jàng alquranul karim gis ngeen wayu am solo woowu nga xam ne way nañ ko waaye itam jàng nañ fa alquran ju am solo ci mboolem xale yi nga xam ne nekk nañ fa la fa jot a jaar itam mooy ñi nga xam ne ñooñu lañ ci mën a jël ngir ñu jàng alxuraan moom waaye mboolem xale boo fa gis mu toog rek am lu mu toogaale ci wàllu alxuraan karim ki nga xam ne itam moo di sëñ Hadi euh, Silla mooy ki nga xam ne moo yore wàllu classe boobu mi ngi nii toog ak ñun xam naa dañ koy jox rek mu nuyoo ak mbokk yi nga xam ne ñooy seetaan télévision Mafatihul Bichri waaw asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu Mafatihul Bichri ñu ngi leen di nuyu di leen dalal fii ci markaz al xalifa Aboubacar si bisimilah. Euh, jërë ngeen jëf mbokk yi kon kii mooy sëriñ Hady Sylla waaye sëriñ Hady bëggoon nañoo xam lan moo tax yow nga taamu jàngale li nga xam ne moom moo di téereb yàlla bi di alquran karim te ñu gis ne am na ñu jël yeneen yoon ndax boo xoolee ñii ngi def menuisier ñii ngi dem di defi defi euh, mécanicien ñii dem di defi wàllu jënd ak jaay yow nga taamu ñëw jàngale téereb yàlla bi te dañuy xool sax buñ gisee am na ci yeneen nit ñoo xam ne bu ñu gisee kuy jàngale alxuraan dañ naan moom de amul liggéey day jàngale alxuraan rek maanaam loolu ban yëg-yëg nga ci waa laaj bi nga laaj de foofu man li ma ci yëg mooy dama yëg ni yàlla moom ma baaxee boole ma ci ñuy jàngale alxuraan ni man sax moom maanaam ama ndax jàngale alxuraan kenn amul capacité jéem nekk ab jàngalekat ci yàlla dugal ko ci yow yàlla mooy tànn ñi ko neex daf leen ab jàngalekat bu defee nag ah ndax yonent bi lañ doon wax yonent bi yàlla mooy summa awrasna alkitaaba alladina astafayna min ibadina yàlla mooy tànn ku ko neex mu dugal ci lan ci daayira ñi ngi jàngale alquran nga dugg fa bokk foofa loolu moo fa dugal waaye jàpp ma ni ngóor a moo fa dugal kenn wala soit ndax mission yonent yonent bi la jërëjëf sëriñ Adi la waaye itam bëggoon nañoo xam maanaam yan objectif maanaam yan yan yan xalaat yan jàppandal nga nga jàpp ne war nga koo mën a liggéey ci association bi nga xam ne moo taxaw tey daara maam Khalifa Ababacar si ba tax mu gën a jëm ca kanam. ah yi ñu am de bu dee association bi yéen yi am mooy fexe ba jàngal ndaw ñi ñu baree bari ñu def ci ñoom alxuraan ak sunna mooy suñu yéene ndax alxuraan ak sunna. moom rek moo mën a jagal ku ko manqué mënoo jag loo bari bari alal ak foo mën di dëkk ak loo mën di def doo nekk koo xam ni exemplaire la da ngay doo am orientation yu baax. bu ko defee loolu moo tax ñun liñ bëgg mooy fexe ba liñ man ci doomi jullit yi ñu def ci ñoom alquran ak sunna loolu daal moom mooy suñu yéene bu ko defee nag ku jàng ba pare nag ba xam ko bu la neexee dem defi métier mu la neex boo dee tukki dem tukki. boo bëggee dem defi maçon wala beneen xam-xam boo bëggee jàngi même boo bëggee jàngi français wala yeneen xam-xam yi ah mën ngaa dem waaye daal ñun daal li ñu itteel mooy alxuraan na tasaaroo na adduna bépp àndandoo di jàng alxuraan loolu mooy suñ suñu objectif. Euh, jërë ngeen jëf euh, mbokk yi kon dégg ngeen suñu Hady euh, Sylla macha allah ni mu ko waxee seen objectif mooy bëgg. maanaam al alquran ci boppam tasaaroo ci mbooleem doomu jullit yëpp ñëpp mokkal alquran karim te itam loola lu am solo la te yaakaar naa bëri na ci sëriñ daara yoo xam ne loolu rek moo leen tax di xeex looloo tax ñuy jàngale alquran ngir bëgg mboolem doomu jullit bu juddoo rek mokkal li nga xam ne moom moo di alquran karim ndax suñu njëriñ la àdduna ak àlaxira waaye xam naa dañ koy jox rek mu tàggoo ak mbokk yi nga xam ne ñooy seetaan télévision ma faatuwul Bichri ginnaaw bi ñu ko jaajëfalee ci njàngale mu am solo boobu nga xam ne mi ngi koy jàngale jëmale ko ci wàllu ndongo yi alquran bi ni mu amee solo maxaarijul xuróof yi ni ñu koy génnee maanaam jàngal na leen ko waaye jàngal na leen ko itam ci njàngaleen mu am solo moo di wàllu wit loolu dafa nekk loo xam ne macha allah xale yi mujjee judd dañ leen ko war a xamal dañ leen ko war a jàngal mu di tajwid ndax njàngale la moo xam ne macha allah dafay dafay xëj ci nit ki jëmale ko ci diinal islam donte xamoon dara ci alquran ji itam day tax dafa neex lool macha allah kon xam naa suñu aada dañ koy jox rek mu joxe message am bi mujj tàggoo waale ak ñi nga xam ne ñooy seetaan télévision ma faatihul bichir waaw li may tàggoo de mooy ah, di leen sant di leen gërëm parce que lii seen participation bi am na solo ndax daara ñee ko seq kii jàngale ak kii jàngalu ak kii dimbali kii lan kii jàngale yéen nag bokk ngeen ci lan ndax feeñal ni kat réew mi am na place yoo xam ne mën sa faa jàng alquran ci condition yoo xam ne maanaam dana mel ni xale bi bu nekkan kër way juróom nam fay nekke nekkin woowa du soppeeku loolu am na solo ba ñëpp xam ko ndax ci jam ci ginnaaw deru daara xaw nañ ko yàq tuuti jàpp ni daara moom daa nekk foo xam ne ko fa dem da ngay sonn da ngay lan da ngay nekk ci jafe-jafe manees naa jàng alquran mais koy jàng ci jafe-jafe léegi nag yéen ngeen def itte ba feeñal ni kat ma des naa jàng alquran te du ànd ak benn jafe-jafe loolu am solo la seen participation bi bu rëy la yàlla yàlla fay leen ah télé bi yàlla tasaare ko ci adduna bi ba fépp di ko seetaan mu bokk ci lay ëpp doole ci ci barke alquran loolu daal lañu leen tàggu bu ko defee wa shukran lakum eh, jërëjëf sëriñ Hady Sylla macha allah woo am na solo kon xam naa dañuy dellu si waat rek ci sëñ si la laaj ko maanaam lan mooy objectif daara ji ndax dañoo gis ne bi ñu fi ñëwee gis nañ fii lu mel ni kii jàkka gis nañ itam ay classe gis nañ itam am na sànce bu nekk ci kaw ñu bëggoon a xam maanaam daara ji lan mooy ay objectif fan la jëm ci yan projet la nekk. waaw soxna si alhamdulilah rabbil alamin euh, daara ji am na objectif yu mag ba ca gën a rëy mooy bi Serigne Haadi wax sànq te mooy jàngal mbooloo mu bari lool ci xale jullit ñi alquran wa sunna ba ñu xam ko doo caa teg lu ñu cay teg waaye itam am am nañ fi ay projet yéen a ngi fekk nii ci kaw ñu yëkkati foofu lañ fa yëkkati tam weesul rek jàngu alxuraan bu gën yaatu fexe ba mu nekk ab jàng bu yaatu am mbaal mu mag mu féex moo xam ne xale mën na faa toog jàng ci ànd ak féex ànd ak condition yoo xam daal du ànd ak coono luñ mën a daw ci wàññi coono ñu daw ko ngir coono wàññi ko bu baax a baax te jàng mi gën a baax gën a gën a puré loolu moom ngeen fekk ni ñu ne ci muy ab chantier boo xam ne tàmbale nañ ko ñu ngi ci alhamdulilah alamin ñu doxal bu yàlla ku ñu fekk fekk ñu incha allah bu ñaareel mooy am nañ beneen projet boo xam ne ab franco la bu nekk euh, six classes yoo xam ne RPS 1 la ñu ngi ko fas taxawal ci bayal bi jigéen di jàkkaarloo ci euh, biir daara ji ci geneen côté geneen wàll gi ndax teere bi xanaa yaatu am nañ xalaatu taxawal ko fa incha allah taala weesu itam xalaat weesu rek def suñu moyen bopp ak jullit bu ñu ci fekk nag ci julliti yàlla yi dugal loxo ñu jël loolu daal mooy xalaat bi suñu moyen bopp. lu ñu man ak jullit bu yàlla dogal nga dugal sa loxo euh, mu fekk ñu ci incha allahu taala pour liggéey boobu mën a mat objectif yooyu bokk na ci bu ci def mooy fexe ba euh, njàngalem alxuraan mu wér mii gën a tasaaroo gën a yaatu xale yi tamit mën a teel a mokk alxuraan boole mën a jàng leneen lu bëgg a jàng ndax la sànq ne la xale yi mën na mokk alxuraan jàng seen sunna ba dem defi leneen métier wala continuer am njàng sax ba am ci niveau boo xam ne mën nañ ci àgg ci niveau mokkal alxuraan xam sharia ba pare am niveau nekk président de la république wala ministère de la justice wala ministère bu mën a doon tey bépp saa boo xamante bii ab ab ab euh, ab donga bu jàngee ci daara ji te mooy ki jàng li yàlla jàngale kooku bu jógee foofu lu mu jiite te doxale ko ni yàlla waxe loola day dox te du am benn faay du am yenn problème problème yu bëree bare bëri yuy xew ci njiit yi njiit yi bëree bëri ci maanaam euh, crise yi am ci wàllu leader yi moo xam leader politique la wala leen beneen leader bu mën a doon la koy waral mooy ñàkk dégg yàlla yàlla mi moom suuf moom nit ñi wax nañ fa war a dundee nam wax ku ca jaarul neneen noo jaar dana am ay fakkatal yu baree bari am ay njuumte yu baree bari am ay yàq yu baree bari ndax ka ko def dafa mënut ak xamam dafa yaatuwut ak manam tamit bariwut fa mu tàmbalee gàtt lool fa mu jëm gàtt itam gën koo gàtt donc nag ñi nga xam ne nag jàng nañ li yàlla jàngul ci mboolem xeeti xam yi ñoom ñu fa ko lépp lu ñu jiite mën naa mel na gën a kawe mën naa mel na gën a baax ndax inna hada al qurana yahdi lillati hiya aqwam alquran jii lépp looy def la ca gën a jub moo la ko mën a wan moo la ko mën a moo la mën a orienté loolu daal bokk nañu objectif yi daara ji jëf oustaz macha allah objectif yi am na solo waaye nag dañuy dem ci ñaareelu classe bi rek seeti ñoom tamit nan nañ fa nekkee eh, di jàng li nga xam ne moom moo di alquranu karim su ko defee itam ñu daal di dellu si waat jotaay bi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 jërë ngeen jëf mbokk yi seetaan télévision ma faatuhul Bichri comme liñ leen ko waxee rek ginnaaw ba ñu amee ak jotaay kii di Serigne Makhtar silla ci daara ju am solo bi nga xam ne moom moo di daara maam Khalifa Ababacar Sy wax naa leen dañ fiy jàngale alquranu karim mi ngi produire lu bari jëmale ko ci wàllu uh, jàngale ak yar ci li nga xam ne moom moo di alquranu karim mu di institut bu am solo boo xam ne dañ fi jàng mboolee matière yi nga xam ne jëm na ci wàllu alquran waaye tam di leen yee ngir bu ñu jógee si daara ji mën a continuer wéyal liggéey bi nga xam ne moom lañ jot jàppalante ci euh, diineel islam ndax lu mel ni ki français ñu ngi leen ko fi jàngal kon mu mel ni ki euh, ginnaaw ba ñu amee ak Serigne Makhtar jotaay bu am solo boobu dañoo ñëw sax si classe bi nga xam ne fi la tuut tànk yi nekk ñu bëgg euh, ànd ak tuut tànk yi rek ñu tari ñu alquraanu karim suñu paree ñu dellu siwaat ak sëñ Makhtar si la ci plateau bu am solo bi. yow noo tudd. foo dëkk. Kër Mbaye Fall. nga ñoo tari alquraan.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 الذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون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 ألا إنهم الشفاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما هت تجارتهم وما كانوا مهتدون مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون ثم بكم عمي فهم لا يعقلون أو كصيب من السماء ماء أو كصيب من السماء ماء بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرقيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمقون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا تؤمنون إنما تنذر من اتبع ذكره وحشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إن صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم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 لا إله إلا هو العزيز الحكيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات آيات محكمات هن أم الكتاب وأخرى متشابهات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 وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على الأرض ما لكم من دونه من ولي ولا ذفير sadaqallaahu l-aziim. ngir ngeen jëf mbokk yi gis ngeen macha allah tout tànk yooyu ndeysaan macha allah alxuraan ju am solo jooju nga xam ne ñu ngi ko jàng gis ngeen ni ñu tuutee noonu lañ mokkalee alxuraanu karim ki nga xam ne itam moo leen doon jàngal alxuraan mu ngi nii di Serigne Makhtar Sylla moom tamit bokk ci association bi nga xam ne moo di association éducation enseignement islamique te ñoom ñett ñi bokk ko di ci. Eh, def li nga xam ne moom moo di jàngale alquran ngir bëgg ci fayek borom bi subhanahu wa taala rek mu di sëriñ maxtaar si la mi ak sëriñ maxtaar si la mu ndaw ak kii nga xam ne moo di sëriñ haadi si la mooy ki yoroon beneen classe bi nga xam ne jaar na fi léegi kon sëñ maxtaar ñu ngi lay nuyu baax di la ziyaara di la bàyyi nga nuyoo ak mbokk yi nga xam ne ñoo seetaan télévision ma Fatima Bichri salaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi leen di nuyu waa télé bi ñu ngi leen nuyu di leen ziyaar di kontaan ci dalal ngeen dalal Eh, jërë ngeen jëf mbokk yi kii mooy sëriñ si la mooy jàngale ci classe boobu nga xam ne jot nañ faa jaar waaye bëggoon nañoo xam sëñ Makhtar lan moo tax nga taamu jàngale alquranu karim eh, ndax bu ñu gisee macha allah bu biñ jaaree ci classe boobu noonu gis nga xale yi mm, alquran ji am solo jooju nga xam ne ñu ngi koy tar jëmale ko ci wàllu tajwid di génne maxaarijul xuruuf yi ak mokkal gi nga xam ne mokkal nañ ko alquran eh, ban yéeg yëg nga am ci ndongo bi taxaw di tare alquran karim ak ban yéeg yëg nga am ci jàngale alquran. waaw ah, laaj nga laaj ba am solo. xam naa ni ko sama mbokk yi jiitu waxee rek jàngale alxuraan yàlla moo nu tànn pour nu jàng ko ñu jàngale ko ndax am na ñuy jàq jàng am na ñu ñu raw te jàngale wuñ kon yàlla moo nu tànn tànn gim ñu tànn nag ñu jàngale alxuraan kontaan nañ ci neex nañu ndax danga am koo xam ne tànn nañ ko pour mu mu def dara waaye lañ ko tànnee neexu ñun nag li ñu tànn nii neex na te mun doon tànnal suñu bopp loolu la ñuy tànn jàngale alxuraan ñu bëgg daal bu dekkee bu yomal xiyaamee suñ dekkee gone yu baree baree bari mokkal si ñun alxuraan suñ sëriñ bi ñuy jàngal suñu Abdou Souré saa buñ ko nuyoo danaan fexe leen ba at mu ne ñu baree bari fere ji at mu ne ñu baree bari wàcc alxuraan at mu ne ñu baree bari mokk alxuraan ñun ci lool rek lañ ne ñu ñaan daal yàlla na euh, yàggal ñu ci ñu yàgg koo liggéey yàgg koo taxawee ba buñ fiy jógee suñu tëralee ne ñuy tiim daal ñuy jàngal alxuraan ba ñu ñu bari ca lool loolu daal neex nañu lool. jërëjëf sëriñ Maxtaar dégg ngeen ni mu ko waxee eh, li leen li leen yàlla jox mu di jàngale alxuraan neex na loon te ñu doon tànn ñoo di tàngal seen tànnal seen bopp. te bu demee ci njàngalam yonent bi salallaahu alayhi wa wax na ko iqra'u alquran fa innahu yati yowmal xiyaamati shafian li ashaabihi macha allah kon mu mel ni ki Serigne euh, Makhtar dañ lay jox rek nga tàggoo ak mbokk yi nga xam ne ñoo àndoon ak ñun ci émission bi nga xam ne moom moo di kàddu daara yi lan nga leen di dénku euh, wala lan nga leen di wax jëmale ko ci daara ji. bismillah ah li ma leen di dénk de mooy euh, ngeen gën a góorlu te xam ne yéen a ngi ci liggéey bu am solo bu jafe lool. ndax télé boo xam ni day wër daara di xool liggéey bi di ko feeñal ci mbokki jullit yoo xam ne xëy na fa ñuy dund télévision bi wane lu mel noonu yombu fa loolu liggéey bu am solo la ñuy ñaan daal yàlla maanaam dëgëral leen barkeel seen liggéey télé bi àgg fépp ci àdduna bi jërëjëf. Euh, jërë ngeen jëf mbokk yi kon kooku mooy Serigne si la euh, macha allah moo yar euh, ñaareelu classe bi di fa jàngale alquran karim waaye nag dañuy dellu si waat ci sëriñ maxtar Sylla Kabir su ko defee itam daanaka egsi nañ fi ñu war a yëkkatee jotaay bi ndax sëñ Makhtar bëggoon nañoo xam itam daara maam xalifa Ababacar si ñan ñoo nekk ci ginnaawam di ko financé di ko jàppale ndax am na ay partenaires yu leen di jàppale wala li ñuy jëfandikoo dafay génne ci daara ji wala ci association bi ñooy liggéey di ko andiwaat ci daara ji loola itam mat na ngir ñu xam ko ndax ñi nga xam ne ñooy seetaan télévision ma faatihul Bichri bëgg a jàpp ci daara ji naka lañ ciy jàppee su ko defee itam suñu noppee ci loolu ñu daal dikk nag ci maanaam ku tudd daara rek tudd ay jafe-jafe yi yamuy am yam yamuy àndal ci wàllu dund baak ci wàllu lu nekk waaye bëggoon nañoo xam ndax am na ay partenaire wala amuñu ko ñu soog a dugg ci loolu euh, jërë jëf euh, mbokk yi kon kooku mooy Serigne Makhtar Sylla euh, macha allah mooy yor ñaareelu classe bi di fa jàngale alquran karim waaye nag dañuy dellu si waat ci Serigne Makhtar Sylla Kabir su ko defee itam daanaka egsi nañ fi ñu war a yëkkatee jotaay bi ndax sëñ Makhtar bëggoon nañoo xam itam daara maam Khalifa Ababacar Sy ñan ñoo nekk ci ginnaawam di ko financer di ko jàppale ndax am na ay partenaires yu leen di jàppale wala li ñuy jëfandikoo dafay génne ci daara ji wala ci association bi ñooy liggéey di ko andiwaat ci daara ji loola itam mat na ngir ñu xam ko ndax ñi nga xam ne ñooy seetaan télévision ma faatihul Bichri bëgg a jàpp ci daara ji naka lañ ciy jàppee euh, su ko defee itam suñu noppee ci loolu ñu daal dikk nag ci maanaam ku tudd daara rek tudd ay jafe-jafe yi yamuy am métit yi àndal ci wàllu dund baak ci wàllu lu nekk waaye bëggoon nañoo xam ndax am na ay partenaire wala amuñu ko ñu soog dugg ci loolu. waaw ne suñu premier moo suñu borom. suñu borom tabaaraka wa taala daal mooy suñu premier partenaire daanaka mooy suñu partenaire sax euh, beneen partenaire bu bu ñu mën a tudd boo xam ne day financé daara ji amuñu ko. waaye nag am na ay mbokk yu yàlla baaxal yoo xam ne léeg-léeg la yàlla dénk ñu jël te tuut jox def ko ci daara ji ngir jàppale liggéey bi am na mbokk yu def loolu yàlla yàlla fay leen te barkee seen liggéey waaye su weesoo loolu leneen lay xew lépp day bàyyi ko ci dajale googu ñu dajale dundub xale yi dundal ci xale yi. nu ñuy jàngale ñi nga xam ne ñoo yor daal muy man man maxtaar mi di wax ak yéen ak Mouhamadul Haadi ak maxtaar bii joxe kàddu gi léegi amu ci kenn ci ñun ko am salaire yeneen jàngalekat di ñuy jàppale nag ak yeneen euh, muraqibun yi ak murabbun yi moom xëy na ñu leen di jox aslëf loo xam ne dañ leen ko war lool waaye bu dee ñun moom daara yor lu ñu mu am jox ñu mu amul ba ñun dañoo volontaire di jàngale liw ci lay taala amul kenn koo xam ne xam na weer wii bu dee ñaata am amul ci ñun day ñëw rek lu lu fa lu ko jox mu jël lu ko joxoon mu xam ne amu fa loolu mooy doxin bi bu ko defee partenaire nag boo xam day financé amaguñ ko waaye daal am na ay mbokk julli yoo xam ne dañuy dugal seen seen loxo loolu bu yokkoo ñu jël mbokkum julli mu dugal loxoom tamit dañuy xam ne boroom la ko defal donte duñu dem nag ci kenn naa ko dimbil lu ngir yàlla déedéet ndax ne laa sànq suñu partenaire bu jëkk mooy suñu borom xëy na moom mi ñu tànnal métier mi xëyal ñu ci man du ñu bàyyi noonu danañu taxaw bañ man koo doxal taxaw bañu ko dox doxal mooy yi si soxla mu defal ñu ko jafe-jafe yi ngay wax nag daara ju ne am na ay jafe-jafe jafe-jafe ci sax dafa mënut a ñàkk ci àdduna am mbooloo mu toll nii fu ñu dajee ci ay xale yu ndaw nga war a taxaw seenu lekk ak seenu naan seenu cet ak seenu pajak mu ngoog seen i benki ña ngi koy goneeg seen i yëf yëfaan ak yëf xam nga gone ni mu bare ay yëf sa kër boo ko yor ñaari doom ñett képp doo am jàmb doo dallu yow nga lu topp ñu ay gone tuut yoo xam ne yenn di yeesaguñ fi ñuy takkale seen yaay waaye ñu mepp leen indi ak ñu xaw a mag ñoom dañoo të dañoo të seen i bokk ñoo jaaxle fi ne ku të say bokk ku të bokk kan lañ am pour solution mooy daara mm. loolu li mu tekki mooy dañoo war a jëkki daara mm. li mu tekki mooy foofu la ñu a jëkki ndax ku jëkkee woon tëgoogu du am mm. donc moo tax ñaar ñoo fi nekk xale bu tuuti boo xam ne da nga koy laddante foo toll ak xale magum jëmm moo xam dafa të ticc bari benk ñenke lool ngay def ak moom ay naxante ak moom pour di fexe ba nax ko jox ko alxuraan ak yar te doo ko torturé doo ko gaañ doo ko def lu koy mu wokk yooyu bu bari yooyu mooy jafe-jafe daara ah léegi nag euh, daanaka daa mën naa wax ne jafe-jafe daal génnul foofu génnul barab boo nekk ak loo mos foo tëdd ak loo foo tëdd ak loo tibb daal foo tëdd ak loo tibb daanaka daara joo dem mën naa am seen muskil foofu lay féete daara ñu nag yàlla def taw ba am nañu terrain kon ñu suñu muskil nekkul muskilatu location waaye muskilatu am ay bâtiment la am ay bâtiment nag jàpp nañu comme am nañ terrain bu yaatu boo xam ne xaj na fi jullit ñi ñuy dégg ku ci ku ci bëgg a liggéeyal boroomam bëgg a tawa tawa boo xam dañ fay jàng alxuraan ba muy ràpp foo mën a nekk ci ci Bambey wala ci kaw suuf sa tiyaab di la fekk barab boobu fii am na barab boo xam ne ku fi tabax dara incha allahu dañ koy jàngal alxuraan ba keroog muy ràpp buñ dundee nun ñu fi nekk ak buñ dee barab bi barab alxuraan lay doon incha allahu taala ilaa an yarisal ardu man alayha loolu moom mooy li nga xam ne moom la wax foofu ci wàllu jafe-jafe su ko defee nag eh, danañ sant bu baax tamit teere bi télé bi xam naa bu ñu àggee ci kàddu gi incha allah waaw numéro yi ñu mën a jotee day eh, eh, mën nañoo jot ci numéro 77 556 36 05 wala 506 77 ba léegi orange 506 89 22 mën nañoo jot tamit ci 547 16 52 ñetti numéro yi boo ci wootee rek. jot nga direct jot nga idaara maanaam jot nga direction daara ji kooko loo ko wax lu jëm ci daara yow loo ko jox lu jëm ci daara ji ñëw na agsi na ñetti numéro incha allah mooy numéro yi nga xam ne koo ci jokkoo la la nga bëgg lépp ci lu jëm ci daara ji wala nga koo laaj boo ko laaj danga ko xam boo ko joxee dana yegg si loolu mooy ñetti numéro yooyu waaw loolu mooy kii kàddu yi mu jiite mooy sant bu baax seen taxawaay bii te rafet rafetlu ko lool te di ñaan suñu borom yàlla bi nga xam ne moo xiir borom tele bi taxawal lii ci lii mu ko euh, doxalee ak ñi muy liggéeyal ñëpp ña cay liggéey ñëpp ak lu ñu ci mën a liggéey ñu ngi ñaan yàlla mu sotti seen kaw tuur ci seen kow barkeb alquran tuur ko ci seen kaw fii ci àdduna ak ci alaxira yàlla boole leen ci nga xam ne di boole ahlu quran yi ahlullahi wa xaasati maanaam jàngal euh, yëgu ci alquran nekkul rek ki sukk xale bi sukk ci kanamam mu koy sax waaye képp ku mën a ba loola di am ku mën a fexe ba loola di continuer di am yàq sukk di ko jox yeneen ki ko mën a def ci wàllu làmb poosam indi fa lu gën a lekk wala ki mën a làmb poosam tabax fa gone yi dëkk wala ki mën a ñëw fekk la ñuy def mu génne ko wane ko ba nit ñi gën koo bëgg ndax ñoo gën ko wut si ñoom ñett ñëpp ñoo tolloole ci njàngale ma ñooy bokk euh, ci dañoo wax na Cheikh Mamadou Khalil Xosar yi bi mu ñëwee fii Sénégal suñu Serigne Cheikh Abdoul Aziz Touré moo ñu doon waxtaan ci loolu soxna yu waxaa soxnaam ni ko bi mu ñëwee ndar daf ne kii jàngale alxuraan bu dee sol aw dàllam dàll wi dang ci tànk bi nga nga woggantil ko dàll wi nga woggante ko daal bi muy sol neena na yéenay bokk tiyaabay njàngale alxuraan ci loolu rek mën a laa ramm ci alxuraan kon njàngale alxuraan rëy na torop euh, liggéey ci rëy na torop def ci saw ñàkk rëy def sa xalaat ak sa xel te yéen ngi def seen xalaat ak seen xel yéen ñii ñëw muy soxna euh, jamilatu jaxate mii nga xam ne dafa bëgg ceeb ak mbokk mi euh, sëriñ Mor nga xam ne yéen ñëw ci daar ji ak yeneen daara yu dul yi ñu ngi ñaan defal leen tawfiq dafa leen barke yéen ak borom télé bi ak ñeen seqal liggéey bi lépp lu ngeen bëgg ci àdduna alaxira yàlla yàlla dafa leen ko ci barke alxuraan moom am na ko te it moom ngeen di liggéeyal loolu daal mooy kàddu yi wasalaamaaleykum wa rahmatulah wa barakaatu. jërëjëf Serigne Makhtar Sylla macha allah waaye jërëjëf ñiy seetaan émission kàddu daara yi kon yoonu yàllaa ngi nii képp ku bëgg a liggéeyal yàlla yoon a ngi nii daara ngi nii guñ war a taxawu daaraa ngi nii guñ war a jàppale ndax ay doomu jullit ñoo fi nekk di jàngale alquran karim bëgg itam ku leen jàppale lool gis ngeen numéro yi mu wax képp koo xam ne jaar na ci rek incha allah dinga jot daara ji ni ngeen ko bëgg a jotee ñu ngi leen di xaar nag comme niñ leen daan xaaree comme ni ngeen daan jaaree ci daara yi rek ñu ngi leen ciy xaar ci daara ji ñaan yàlla lépp loo xam ne def ngeen ko fi rek mu nekk xéewal ak boo xam ne dafa sotteeku ci yéen kon ñi ngi sant bu baax a baax waa kàddu daara yi amuñ seen fay ñi nga xam ne saa su nekk ñi ngi dajale seen yére ñu ngi dajale seen dàll ñu ngi dajale seen saabu di ko yónnee ci Sénégal jëmale ko ci daara yi amuñ seen fay di ci jiital Nayim ñu ngi koy sant bu baax baax Pape Amadou Diaw euh, sëriñ Iba Abdourahim Traoré moom it amuñu fayam ak soxnaam soxna euh, kii Nogoy Seck moom tamit amuñu fayam soxna Fatima itam nekk ca Canada jàmbaar la mi ngi jàppale daara yi yàlla na ko yàlla fay ak soxna Fatima euh, Kébé Sarr moom tamit macha allah ca Italie amuñ seen fay yàlla na yàlla jàppale leen yàlla yàlla fay leen Cheikh Bara Kandji ñoom ñëpp ñu ngi leen di sant képp koo xam ne def nga sa loxo ci daara rek ñu ngi lay sant a baax mënuñoo lim ñëpp ndax ñëpp a ci def Abdourahim Diagne moom tamit euh, ñu ngi koy sant bu baax a baax Abdou Khadir Diagne amuñu fayam képp koo xam ne daal mës ngaa yëkkati sa àll rek def ko ci daara amuñ sa fay yàlla na yàlla fay leen yàlla na yàlla jàppale leen waaye daaraa ngi nii ku ñu war a jàppale daaraa ngi nii kuy liggéey ci yoonu yàlla képp ku bëgg a liggéeyal yàlla rek mën ngaa woote ci daara ji def ci sa alal kon di sant itam sëriñ moor sëñ moor moom la ñu àndaloon Mor ñaa moom lañu ñu àndaloon fii ci daara ji nga xam ne moom mooy daara maam Khalifa Ababacar si mooy daara ji nga xam ne waa association éducation enseignement islamique ñoom ñoo ko taxawal mu nekk fii ci Kër Massar Médinatu Gànna saar képp koo xam ne rek def nga sa alal yàlla yàlla fay la kon ñu ngi leen di sant bu baax di leen jaajëfal di leen jox dig daje ci beneen émission kàddu daara yi wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu iqra bismi rabbika alladi xalaq xalaqa al insana min alaq iqra wa rabbuka al akram alladi allama bil qalami allama al insana ma lam ya'lam كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى